mais xam ngeen ni Dugal jóge na Kaaw daal di ñëw Sénégal léegi nag ba ñëwee Sénégal bàyyi woon na fa soxna nag léegi nag jabaram boobu nag ñëw na topp si ko ba si Sénégal léegi nag jabar bi topp si bi mu ko topp moom arrangé wu ko parce que dugaal dafa ñëw pour def benn mission mais jabar ji muy Aïssa dafa mel ni dafa sentir ne jëkkëram mi ngi waaja def benn njombe te mooy faat ki nga xam ne mooy Sàngomal pour man Aïssa daf ko sentir te Aïssa mm, nee na moom fépp fu dem daf koy fekk te noonu nag su koy def xam naa ni kon ah, Dougar li mu bëgg a def Sangomar kon du sotti kon dugal li mu bëgg a def Sangomar pour mu sotti kon saa faaw mu toog may ko moom mu dem continuer mission am mais Dougar fu mu dem ay Aïssa topp ko non boobu moom mission am du sotti moom moo tax Dougar nag jépp na ko Dougar euh, Dougar mer na ko. ñor na ko taw taw parce que nag Aïssa moom ah, mën nañoo wax ni daf ko daf ko waaw waaw waaw mais euh, moom jaaxal na ko ah ndaxte yow soo doon ànd ak sa fu mu dem nga ànd ak moom du wax dara mais benn bis ñëw a ñëw a ñëw mu daal di changé ne bëgg ma toppati néew ak nii waaw waaw foofu moom ah, ñoom ñëpp dañ faa tiit quoi waaw waaw dañ faa tiit waaw dan ngay ànd ak sa jëkkër toujours ah yow fooy dem di ànd ak moom mais benn bis ñëw a ñëw a ñëw mu ne bëgg ma toppati parce que dama am yu may def mais yi muy def xanaa tegu ko si yoon quoi mais man mais nag dafa mel ne Aïssa daf ko sant te Aïssa xam na ni ah Douga bis bu juumee ba faat euh, Sangomar xam na ni dina tëdd kaso te su tëddee kaso bàyyi ko fi moom ah waa dina sonn waaw nit ki moom ñaanoo am jëkkër ba pare muy du muy dugg kaso léegi nag yow jabaram nga nekk fii di sonn waaw léegi nag Aïssa moom xaw ma def ko sant mais nag am na bopp tant mais nag su ko continuer di ko dopp di ko topp nii moom ah Douga li mu bëgg def si mission bi dëgg dëgg dëgg du ko mën a def du ko mën a def mais nag Dugal ah menacé na ko wax na ko mm, affaire yu nekk mais Aïssa moom nee na du bàyyi waaw jëkkëram fu mu dem mi ngi fa mi ngi fa quoi.